accident am ci route nationale numéro 2 ci diggante Ross ak Ndar modi di ab bus bo xamanteni dafa jëgé won ci njum jëm nak fi nga xamanteni mom modi Dakaru bi mu tollo nak ak dëkk bi nga xamanteni mom modi di pont gendarme digganteem ak Ross di tollu rek ci juroom ñaari kilomètre foofee nag ci la dal dé daanu ci bi nga xamanteni nak mi ngi doon moytu nak benen auto bo xamanteni mi ngi doon ñëw ci kanamam noné nak ci la wacc tali bi nak dal dé daanu ci li nga xamanteni mom modi témoignage yo xamanteni jot nañ ko nango ci ña nga ñoom ña nga woon ca bis ba. dogalu yàlla rek parce que lu mel ni bis bu daanee ay client ñu ngi ci biir kenn déewul nañ sant yàlla rek euh, ndax lii beneen affaire la encore lu ki gën a métti nag bis bi dafa baaxul nañu gën a contrôle tali yi bis bi dafa ba dafa baaxul dund nañu Versailles waaye ba léegi gars yi dañ koy dugal foofu ay nit encore bis bi dafa am problème léegi nag loolu noonu war nañ ci takaw parce que lii xam nga lii kiiwul biis bi bi muy daanee fi ay sept yooyu xam nga loolu bëccëg la. ca mujjantal ga nag lu tolloog juróomi nit daal di ci am gaañu gaañu mun a am nag ñaar ñoo xamante ni ñoom seen bos moom moom moo ci xaw a gën a métti tuuti mu nekk mbir moo xamante ni nag ñii di gendarmerie teel nañ fa teew ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di pompier ngir nag mën a taxawu ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di way boroom gaañu gaañu yooyu lee dafa am benn camion bi doon ñëw camion bi doon ñëw nag mu ngi mu xam tali bi dafa kii dafa xaw a xat camion bi mu ngi ñëw moom mu ngi ñëw léegi moom mu bañ a daj ak camion bi bu dajoon ak camion bi mu musiba am léegi chauffeur bi fexe pour wàcc fu muy wàcc nag dafa kawe loolu moo tax bis bi daan mu di nag mbir moo xamante ni dafa dellu siwaat rek ci jamono bi nga xamante ni Sénégal ñi ngi wéy di wàññi accident yi nga xamante ñi ngi am ci réew mi loolee ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo ci bis bi ñoom sant yàlla bu baax ginnaaw nag ñi ngi dese seenu bakkan lu dul di sant meti bu baax rek di sant suñu di suñu ndax dañuy wax ni na ndax na waaye sant yàlla bu baax ñun dañoo jógee njum li horaire njum la dañoo jëmoon Dakar maanaam ndogal yàlla rek doomu aadama lépp lu am rek xamal gëmal yàlla rek nga xam ne ndogal yàlla accident bi nak am ci waxtu wi nga xamanteni mom modi 7 heures japp 8 heures du matin tewul nak ñu gis bis bi mom amna na yàqu yu bari ndax nak buñu xolé ni nga xamanteni noné choc bi mu nek nak mbir la ca yàqu sax bari na lool mu nek nak di wéy di duggu ci limu accident yi nga xamanteni ñi nga am ci Sénégal ci atub 2023 bile Fi nak nga xamanteni mom modi ci pont gendarme mom euh, bis bi buñu xolé wi euh, dayo lool